Écoute sur 9 h ci rajo Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoo ngi leen di sant bu wér a wér di leen gërëm. di rafetlu ni ngeen àndee ak rajo Futur Média di rafetlu ni ngeen di teewloo suñu émission xalaas mu di journal fait fii ci RFM lundi ba vendredi jaajëf euh, Abdoulaye Diop ci technique bi jaajëf Yacine Pouy ci digital bi dellu gërëm également sama waa ji passe partout maa ngi koy nuyu bu baax a baax passe noo def. Ndiaye l'homme fort de Ngabou le très puissant l'homme fort de toute sa génération maa ngi lay nuyu di la ngi nuyu auditeurs yi bu ci teg dara di ziar ñëpp di jàmm di ko sàkku ñoom. it maa ngi lay ñaanal jàmm ju baax. amiin waay yal nañu ko yàlla boole. <laughs> loolu moom mën naa ko cee teg. bu baax. ay ca kon. ñaanal partenaires yi ñuy gunge ci xalaas ñaanal leen jàmm ñaanal leen salaam mais également di leen gërëm bu baax a baax bokk ci ñoom établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ñoom ñi nga xamante ne ji ñoo indi gàmm bu baax bi di gaamu vite fait gàmmu vite fait gàmm la boo xam ne lépp lu doomu aadama di soxla ngir bien-être am gën a mucc ay mi ngi ci gàmmu vite fait bi gàmm boo xam ne dafa indi saabu bu efficace saabu bu baax ci yaram saabu bu doy waar ñu naan ko savon king mu am ci anti acné am également aloe vera gàmmu yamul foofu di ngeen ci am pâte dentifrice vite di ngeen ci am également diwu yaram vite fait insecticide vite fait frotté bu efficace marque vite fait ak yeneen yoo xam ne ñi ngi ci bi am na saabu bu ñuy waaj indi boo xamante ne ji boobu moom ñëpp mën nañ ko utiliser saabu boo xam ne dafay revitaliser seen peau di ko toppatoo di ko aar boobu it euh, ci euh, gàmmu vite fait bi la bokk établissement waa kër Serigne Touba Fall et seen numéro téléphone fu ngeen dem ci réew mi boutique bu ngeen dem wala marché bu ngeen dem lu ngeen soxla ci produit vite fait am na fa lu ngeen soxla ci gamme bi am na fa bu leen neexeet mën ngeen wootee ci numéro téléphone yi ma leen jox ngir kon def seen ay commande ñu gërëm Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous di leen xamal ne Optique Vision Plus Sénégal showroom bi mi ngi Dakar waaye am nañu boutique bu mag bu ñu ubbi Kër Mbay Fall am nañu boutique bu mag bu ñu ubbi Touba am nañu boutique bu mag a mag bu ñu ubbi fële ca euh, Saint-Louis Louga ak fi nga xam ne moo di Mbour ci diwaanu Thiès ubbi nañ fa benn boutique bu yàggul di leen xamal ne jamono ji dañoo nekk ci promotion bu mat sëkk ñu waa Optique Vision Plus Sénégal indi également arrivage arrivage bu bees tàq ci ay lunettes cadre lunettes accessoire lunettes ba ci lunettes de soleil yu yéeme ci marque yi gën a euh, tendance marque yi gën fashion moom la ñu indi euh, képp koo xamante ne ji soxla nga ay leeral ci euh, Optique Vision Plus Sénégal ak foo mën di nekk ci réew mi da ngay woote ci 33 821 54 57 77 479 63 38 euh, ñu jàll ci beneen partenaire moo di Infinix borom téléphone bu yéeme bu baax bu moderne bu rafet bi mu di Smart 7 série batterie bu dëgër mémoire bu yaatu 6000 mAh ñu am nag euh, li ñu naan Smart 7 plus am également Smart 7 HD am na beneen téléphone boo xamante ne ji Hot 30i la tudd téléphone Infinix ku ci bëgg ku ci bëgg euh, jënd di jaayaat wala nga soxla ci information yu gën a yaatu wooteel ci 77 881 26 96 77 jeexal. lëkkaale ak kafe bi lëmbe jamono kafe bi lëmbe réew mi jamono ji mooy kafe Touba Jaali kafe café jaalibatu nga xam ne kenn dootu ko laajteeti ci réew mi ku bëgg kafe bu neex café pur café Euh, boo xamante ne ji euh, boo ko ne ci suba si journée bi yëpp day des sa xel mooy café Touba jaalibatu neex na sell na jàppandi na ñu am ko nag ci ay euh, gamme yu bari te bokkul am nañu ko ci café Touba premium capsule café expresso classique café Touba tonus ak café Touba premium ak café Touba classique 33 864 59 64 wala 77 539 29 00 mooy numéro yi ngeen mën a jokkoo ak waa café Touba jaalibatu ñu leen di gërëm bu baax a baax dellu également gërëmaat auditeurs yi sant waa Sénégal ci confiance bi ñu am ci xalaas sama waa ji ñu tàmbali. jërëjëf waay l'homme fort. ay ca Ndiaye. Mm-hmm. xale bu ndaw bii de mu ngi tudd Pape Babacar njaay mm-hmm. yaay mi ngi tudd Diarra Fall papa Mansour Ndiaye. Mm-hmm. dafa réer nag xale la xale bu ndaw la amagul sax 4 ans. koo gis mën nga woote ci 77 204 47 00. am na benn xalaas bu mu fi jàllale woon euh, ay weer ci ginnaaw xam naa ne di nga ko fàttaliku mooy waa ji nga xamante ni. daal amoon na ñu mu amaloon problème ba ñu fi doon dekk ba soxnaam ñoom fi déclaré ne. dafa taal otoom dem yóbbaale seen doom bu ndaw. yaa ngi parle histoire boobu. Mhm. te bi muy dem boobu xale bi solul woon yëre et tout. fi ñuy wax ak yow nii njaay xale boobu feeñu. Hmm? waaw. dañuy ba fii ñuy wax yow nii. xale waa ji gisuñu ko xale ba gisuñu ko. mais déggu moon sœur bu ñu doon wax naan bu ñu ko jàppee mu wax ñu xew ndax dafa mel ne. waaw mooy sër bi jëloon engagement ne doo dina fay waaw waaw ba léegi ba léegi nii ba nii nii nii hmm? fi mu ne coow li mooy soxnaam doom ji mooy problème am bu jigéen su ma juumul mi ngi doon soog a fernamp bi bi génn daa kuusi woon hmm. ba nii. xam naa ne après dinaa jéem a waata soxna si ñu jéem a xool en avancement wu. affaire yi ñi ngi ñi ñi ngi wax euh, lu toll ci ñaar fukki xale yu jigéen ak juróom-ñaar. Hmm. yu ne euh, Touba dëkk ñu ne ki leen doon jàngal moo leen doon saay-saay. waaw boobu ba léegi ñi ngi wax waaye du ngeen ci wax yéen waa xalaas man personnellement duma ci wax. Hmm. xam nga nit ndigal lay jëfe hmm. te nit mënul ëpp ci àdduna lu weesu ay waajuram mhm. fii la fi histoire bu mel noonu amoon diggante ay donga ak ñi leen di jàngal mhm. ñu fenal ma fi lu rëy waxal ma fi lu rëy weñ moom koy yemuñ ci yemuñ ci donc voilà mi ngi noonu man moom personnellement man sax dañ maa woowul ba démb am na ko ci jokkoo ak man wallaay wallaay man dañ maa woowul mais le problème qui se pose mooy aussi mhm. Mohamed weex da nga lu weex la li ngay wax nii toog naa fenn ma wax ko def nañ fi émission ci genre fait yu mel noonu lan lañu fi tuumaal dañuy xeex daara nii lañ ñu ko tuumaalee te fekk suñu liggéey dong la ñu def xool ñu si ma sàmm xool ñu si ma demba xëy na bu doon nag bàyyi nañ ñu liggéey suñu liggéey normal ñu suñu liggéey normal buñ ci waxul ñu tax waxu leen ci boo ci waxee ñun da ngeen xeex daara ah, ñun tuuti nañ ci xeex daara mën di doon daal journaliste bu ñu mën di doon ak yu mu ci mën di doon boo yëkkatee mbir mm-hmm. ci yow am ci sa wajur woo la ne la bu ma la ci déggati mm-hmm. man personnellement dootuma ci waxati ak lu mën di xew nag léegi waaw yaa ngi gis na dëkk bi euh, Mohamed temps yi manifestation yi toj yi taal yi bari na mhm. suñu takk der ñu ngi def liggéey bu am solo mhm. ñu leen ci félicité bu baax a baax loolu sax bëggoon naa am ñu ma avertir hmm. xam nga manifester yi da ci am ñu ñàkk jom ñoo xam ne dañuy sàcc hmm, waaw ndax taal benn magasin hmm. wala dajj benn magasin dugg fa gàddu mat laa ba jangte jangtee yóbbu sàcc bay sàcc chariot yi xam nga loolu moom du doone ma démocratie ngay xeexal. doone ma liberté ngay xeexal. doone ma troisième mandat ngay xeex. mënoo mhm. ko justifier. léegi nag dama leen di xelal ñoo ngi jëm ci tabaski. Mhm. gars yi jóge nañ ci àll bi indi seeni xar. waaw ku fi sàcc xarum jàmbur boo dajee ci làkkat bu bon. Mhm. da nga ko réccu. ndax de xam naa ne weeru juin yu ñu dëdmal di duñ ko génn tabaski. sérieux waaw. dar fekkal daral mu tege nit jël ay xaram yeew ko ngay manifester ba jël ci xar yóbbu. man de nee naa yàgg njaay. ah tabaski kañ la. <laughs> topp leen coow événement yi ba fàtte tabaski gën ñu dem ñu dem. Ah. dégg nga. parce que damay def benn transition par rapport à ça li tax ma wax loolu mooy. Mhm. gars yi ñu ngi focaliser ci ñii di manifester ak ñii di wër di taal ak di toj ak yooyu noonu. Mm-hmm. du lu kenn nangu wax dëgg yàlla na xam ne réew mi jàmm moo ñu jig mais daf ci am ñoo xam dañuy prox ndollu fi mu toll nii agresseurs yeeg band yeeg yooyu. Mm-hmm. ñu ngi prox ndollu gis nga fële ca pont wu ànd. ñu benn confrère bu nekk Sud Quotidien démb bërki bërki démb autant pour moi dafay dem di liggéey bu yegg ci kaw pont bi. Mm-hmm. ñu dóor ko ban xam nga loolu du manifestation du dara loolu yàgg na ci pont boobu. pont bi pont bi manqué na sécurité maire yi fay dem di di jéggi pont pour dem place jënd ay jën mhm. sax léegi mëntuñoo jéggi fajar bi. ban pont la. pont aan bi mu nekk Kapa xam nga dañ ko dañ ko defar léegi mu nekk benn genre pon genre bretelle yooyu noonu. Mhm. Mhm. foofu léegi maire dañuy obligé taxaw ba ñu mat quatre personnes ñu luyee taxi mu jéggi leen pont bi. ndax daw agresseur yi. sinon ñu kar leen ci ko pont bi te foofu ni pont bi bindoo moom daw fa bëri ci du yomb. kii moins cinq mu jaar seen côté dafa noonu def crime foofu. ban lañu ko sànni. ban lañu sànni otoom oto baa nii mu foncé seen biir. xam nga ban kuy manifester du ko yor. non non ñu sàcc lañu. seen ban lañuy yor tocc booy tali bi di la xaar. ñu déglu ko. Sud Quotidien nag a nekk quoi démb dama doon liggéey ci man je suis l' imprimerie journal bi foofu mu ñëw niveau pont Kappa ci la ma booy kojee foofu ci kaw pont bi vraiment na gën a garaaw sax quoi yàlla mu suturaal ma foncé seen kaw mu dawee côté rek euh, xaw ma lu mu bi lu so daw mu yor da bu mel ban xaw ban la xaw ma xeer ñëw sama xeer bi noonu parce que waaye yàlla ma defal sutura mais na fi gën a ñàng pont boobu daal war naka jëkk ça était toujours comme ça zone malheureuse la vraiment kuñ fa koj boo la yàlla suturaal lool mun nga cee bañ a mucc quoi dama ñëw ba tiim leen rek waa yëkkati ban bi jàkkaarloo ak man ma xam ne solution bi fi des mooy foncer ci kawam sinon mu toj sama pare-brise ma foncer ci kawam ci la dawee nag sama côté gauche juste bi may romb mu sànni ko ci portière arrière gauche bi quoi le verre bi toj ma continuer na ba imprimerie si laa soog a taxawee xool situation yi noonu daal la demee foofu moom comme yi yaa ngi risque sa vie quoi gis nga famille yi dem euh, à la plage fajar gi di jëndi ay jën ak yooyu dañuy mujj obligé dajaloo ci entrée pont bi ba mot quatre femmes jël taxi loué taxi mu wàaj yéegal leen pont bi wàcce wala ñu gis benn particulier borom yërmande wàcce leen si lañ leen dem fa daan di nangu seen xaalis ak yëpp vraiment doy la waa tërëb ñëpp a ko doon jooytu ñëpp quoi bi ban bi dalee rek bon jëw ma sax taxaw quoi dama kon ne forcé ba egsi imprimerie soog taxaw quoi xool situation gis bon verre porté bi ñëpp nekk ci biir oto bi ma ne bon ok comme fii yàlla baax na quoi mais jëluñ dara e ci man. gis nga un des deux. bu taxawoon mën nañ ko gaañ. su yàlla dogaloon mu foncé seen kaw moom mu jàmm problème. moo tax nañ ñaan yàlla mu ñuy muccal rek. beneen affaire aussi. Mhm. xam nga yaa ngi dégg fan yi yëpp bu ay manifestation amee wala buñ jàppee ne dëkk bi nar naa am ay manifestation mhm. autorités yi génne benn arrêté di wax ne nañu tere de roues yi. waaw ñu circuler waaw. man awma lu ma ciy wax parce que autorité cim réew. ku dib citoyen da ko war a respecté. bu ñu nee yam leen fii yam leen fii. def leen fii def leen fii. Euh, bu leen dugg fii bu leen dugg fi mais bu loolu weesoo. ndax xam nga am na ñoo xamante ne ji li ñuy yore seen kër ñi ngi ko wékk ci seen moto. bien sûr. ndax xam nga ne am na ñoo xamante ne ji li ñuy faje seenu njaboot ñi ngi ko wékk ci seen moto. bu baax est-ce que xam nga am na ñoo xam ne li ñuy faye location ñu ngi ko wékk ci seen moto. bu baax waa léegi bu dof yee taxee ñoom nit ñi ñu xañ leen seen teranga ñax gu wow dafay lakk-lakkaale gu tooy. li ñu mën a def mooy bu ñu génnee ci yii. koo xamante ne ji danga jël métier livraison càq-càq def ko muy métier. ñu seet nuñ la identifier bu jaree ñu lay joxe këyit comme ni ñuy joxee këyit yi oto yi ba bu lu mel nii xewee. Mm-hmm. ñu xam ne yow liggéey moo la tax a jóg mais doo defkatu ñaawteef ñu bàyyi la nga dem daani sa doole. Mm-hmm. parce sama classe gi ñu ci bari li ñuy euh, añee bu ñu xëyee lañ koy lijjanti. li ñuy reeree bu ñu añee ba pare lañ koy lijjanti. au jour le jour suba dañuy reer ba pare soog koo réglé ji. Mm-hmm. xëy na ku ku sañoon du demee noonu. ku sañoon du demee noonu mais comme jamono moo ni tëddee li bon rek mooy bañ a def dara. nañ leen dimbale geesu hmm. leen parce que sonn na hmm. bés yi ñu ngi tegaloo man su ma juumul compté naa ay fani fan yoo xam ne dañuy génnee arrêté ne wéy moto bu mu daw tel heure ba tel heure hmm. une fois encore di dogal bu ni mel man awma lu ma ciy wax parce que ci autorité la jóge waaye nag da ngay suur ñi nga xamante ne ji ci moto yooyu ci lañ yor sañu kër jamono neexul et au de ça. Mhm. au am na ñoo xamante ni bu ñuy xëy seen bureau moto la yor. Mhm. c'est-à-dire concerné ñuy def càq-càq dong wala ñuy def livraison kese dafa concerné ñoo xam ne dañuy xëy si seen bureau moto. mais je pense ñoom am nañ ñuy def communiqué yu demee mhm. mooy gën parce a yor xam nga ku yor motom di xëy huit heures si wàcc vingt deux heures talul dugg Facebook communiqué bi ñu bind ko publier ci internet bi du ko lire. xam nga sax ci wax day xëy taamutam jàpp ko. waaw loolu mu ngi ci information bi du yegg. du jàll. dañu comme tey jii lañ koy génne ne à partir de 17 fekk na kooku xëy na bu yàgg. mais nañ leen nañ leen dimbale rek. ah nañu fexe daal ba ñu bon ñi. ñu teg leen loxo ñi nga xam ne nag dañ ciy wut teraanga ñu gën leen a jàppale ñu dem. problème bii nag Mohamed. dan <laughs> moo yàlla baal Ndiaye ñii dañu am dem di faj problème bi ñu yokkal leen problème boo xamante ni xamuñu fu ñu koy waxee. auditeurs yi ñu ngi may laaj ana ana ñaatam ana ñaatam ba ana ñaatam ba. waaw ci embouteillage yi la la ci ba léegi. Mhm, embouteillage yi compliqué. Njaay mais ci tuuti dina ñëw ànd ak euh, auditeurs yi ci dëggantaan. dëggantaan mhm. famille bi. Mhm. dañoo nekk ci wàllu miiras. déglu bu baax li ma lay wax. seen grand frère. dafa nekk bitim réew. yàgg fa lool ba mu déggul sax olof nag parce que jot naa wax moom mais comme xalaas euh, Sénégal dafa kii ci laa waxee ak sëram quoi. bi seen wéy bi seen seen alalu maam ñu waroon koo donn mu nekk xaalis liquide. xaalis bu bare baree bari ëpp na un milliard. waaw ëpp na un milliard. ñoom hmm, seen maam ji liggéeykat la woon am na ci koo xamante ni démb papam li mu bàyyi ci xaalis mat na 2 milliards bu am problème woo na ma démb ci suba kooku tamit dinaa ci ñëw mais ñii seen bos dafa doy waar Ndiaye. Mhm. bi ñu waree def affaire mirage ñu bañ mu am coow. ñu doon wut ku leen ci ñaanal pour seeral coow li maanaam pour maanaam partage bañ am coow. Mhm. seen mag yu jógee France ñëw ubbi fi benn entreprise am xamante ak benn booy bu ñuy wax Daouda Cissé. Mhm. mu doon waxtaan moom booy bi ne ko Cissé. pour man Daouda Diouf nga wax sax. déedéet kan suñu Daouda Diouf. non non déedéet. Ah. Daouda Diouf rek laa mhm. ne ko papaam ñaankat la mu ngi dëkk ci village yi nekk fii boori boo génnee Gambie yooyu mhm. mun na ko boole papaam mu ñaan leen cooli fay ah ñu jëlee papa ji ñëw wutal ko suite loger ko ci koor gi. bii paase bii mhm. ak Daouda paa bi na fa di xonjom di leen jox ñuy sangu muy xonjom di leen jox ñuy naan. maanaam bu doon ñaan day ñaan fi nga xam ne fa la xaalis ba ne coffre ba weeru koor kër gi wéet paa bi ne daa bëgg lu mu reeree frère bi génn dem di ko wutul mu reeree paa ba ak doom lépp laa wax njaay coffre bi en en en tout la paa bi yenn yóbbu léegi avant loolu paa kër Massar ci benn kër ne fa la dëkk ndëkk paa bi dafa faa teg fa benn mat la ñu topp ci plainte fu ne dugal nañ ko fa léegi nag waa ji waa ji gëj naa toog fii ndakaaru mi ngi toog fu mu dégg paa bi dem fa dem na ba dem ba ci dëkku paa bi ba dajeeg moom ci jumaa ji poñe ci yére bi ne koy kii du man kii du yow paa bi ne ko toogal waaj ji toog paa bi dem bàyyi ko fa hypnotisé paa bi def lii moom lañ fekk ci jumaa ji maa li moo tax gis nga jaamu yàlla gi yaakaar naa ne bu ñu demee yomal xiyaam dana bëri kii de. <laughs> bëri rek il faut nga déglu. parce que dafa am suivi ndax booy fu mu nekkoon à Saint-Louis. Uh-huh. booy Daouda fa mu doon jàng yëpp identifié nañ ko. Uh-huh. mais foog nga déglu histoire ba pare. Hmm? waaw. ñu déglu déglu. Cissé ci boppam muy booleeg papaam Mamadou Boy Cissé dañu yoroon xaalis boo xam ne dañ ko waroon si doo daal comme affaire héritage la affaire famille la léegi comme xaalis la ñuy wut euh, vraiment ñu jéem ci wut jàmm bañ benn problème am ci et tout Daouda Cissé moom su ma fekk sama frère bi xam na ko sama frère bi xaw ko expliqué di ko expliqué ay waxu xaalis ak yooyu léegi kooku daan ne ko man sama papa day ñaamelaate am na xam-xam mu wax a wax a wax ba convaincre sama frère bi Daouda Cissé indi papaam ci biir kër ga séjourné na fa mani la deux semaines et poussière di leen jox ñuy sangu ju suis tout le temps des fois ma nekk fa des duma fa nekk parce que damay nekk sama business aussi mais moom li mu fa séjourné mi ngi fa nekk di leen jox ñuy sangu man moom ji merci sanguwuma naanuma ci takkuma ci mais daf leen jox sangu di jox ci ñuy naan dem na ba sama frère bi tëdd feebar mënatul jug ndekete boobu yëpp paa bi ci boppam mi ngi def étude de terrain pour mën a tàllal lépp ba mu normal mu mën a teg piège am vous donc moom mu jaxase def leen ñuy sangu jox leen ñuy naan jox leen ñuy lu nekk ñu dugg ci ba mu demee nag ba nga xam ne miine na foofu noonu yëpp instauré na climat de confiance bi dafa newee dafa hémorroïde dafa feebar des fois mu dem ay kër ma saax mu faju des fois mu dem yenn hôpital moom dem na ba yóbbu sama frère benn kër fii kër ma saax

nii waa damaa xëy jëndal leen ma lu lekk piège la sama frère am commandal ci la profité woo doom ci ñu jël coffre bi yóbbu ko donc ñun euh, de notre côté aussi on essaie de de am nañ ay des parents parce que on a des parents guinéens et maliens et tout tamit ñu jéem a xool suñu côté guidé ñu ba wax ñu ko mi ngi ci dëkk teel ñu dem ba dëkk boobu noonu mais mënuñu ko gis mënuñu yegg ci village parce que apparemment kenn nanguwu koo xam ci village ba te somme bu colossal bi mu yóbbu bu ñu la ko mais da nga naan mënul nekk xaalis bu bëri bëri bëri bëri bëri la Mamadou Boy Cissé yóbbu ak doomam Daouda Cissé yóbbu nañ xaalis bi dem nañ seen yoon sama frère nag depuis lors mi ngi Sédhiou apparemment côté boobu noonu la côté Bounkiling je ne sais quoi léegi mi ngi foofu ci village yi jege à côté mais mënul dem ci village yu paa bi proprement dit parce que foofu xamal nañ ñu ko ñun ñi ñi ñi ñeneen ñi ñuy conseillé côté bi si nee nañ ko boo duggee foofu du baax ci yow te wax dëgg yàlla paa bi téye woon na sama frère mystiquement ba ne ko boo waxatee xaalis bi da ngay dee sama frère tëdd na feebar il a fallu que ñun tamit ñu faire appel à nos ancêtres et trucs pour que sa vie parce que tamit nekkul ci xool nit ki ñëw jël xaalis bi yóbbu sama frère bi nee na fii récupéré wul xaalis bi euh, la preuve jour korité sama frère dem na ba ko ba gis ko si ba si seen dëkk dem jàpp paa seet jàpp ko ci ne ko fixé ko ci bët ne ko toogal sama frère toog paa bi dem te man je commence à m'inquiéter parce que le euh, koo xam ne am na xam-xam mu mën ñu dimbali ci paa bi mu delloo si xaalis bi sama frère il arrivé que mu koy filmer muy filmer paa bi ba ñu nekkee ci suñu biir kër dafay jekk saay mu supprimer ko du xam sax lu tax daf koy sàcc di di ko filmer paa bi bi ko fixé rek sama frère day tiit supprimer vidéo bi amul benn photo wala vidéo su paa bi Daouda Cissé kay moo ñu booleeg papaam Cissé mën naa je sais pas sama frère bi fan la ko mais moo ñu daaw di Cissé daaw di Cissé indil ñu papam papa ji moo di ñaanal et tout sama frère bi il était en France dafa créer fi business am dafa fi ubbi ubbi kiiwam benn benn entreprise am et tout donc voilà sûrement foofu la koy xamee parce que man histoire bi dafa moo énervé ba yenn détails yi du ma ko sax jéem a jéem a comprendre bon kii somme bi mu yóbbu très honnêtement c'est plus d'un milliard deux te ñi ngi ñuy wax ni que mi ngi commencé jaay ci xaalis bi mënu koo jeexal nag mais mi ngi siy jeex. lii dafay am suite Ndiaye. non li koy du am suite ndànk sax li koy suite ak développement. conclusion lépp la war am. parce que. mais man dama am ñaari question waaw nee na li mu na un milliard. Hmm. un milliard mënu nekk ci coffre bu ndaw. waaw paa beeg doom bi nu ñu jànk jànktee koof kooful ba génne ko ci kër gi ba dem. Ah, est-ce que mën ñu ko planifier am yeneen complice. parce que goo xam day beneen bi ci topp mooy coffre bu un milliard di nekk war naa war naa dëgër dëgër goo xamante ne ji waaw caaxaan du ko tijji te xam naa waxuñu ko paa bi paa euh, kii bi nu mu sati euh, code bi ñaay mën naa wax benn affaire mhm. gis nga maanaam ñaankat yu dëng yii moytu moom boroom xam-xam bu saay-saay boroom xam-xam bu saay-saay moytu ma ko mhm. mën na la ko tijjuloo ci ay pexe. boole ci waram doole ju gëmul yàlla. waaw kay mhm. léegi nag ñi nga xam ne ñoo dëkk paa bii ñu koy wax euh, Mamadou Boye Cissé ak Daouda Cissé mi doom man gëmul sax doomam la gëmul doomam la ay ay affaire la ñuy def rek ñëw naa ne sama pap fekk du papaam courtier la ñuy doon bu dee dëkk ba ñu dëkk xam nañ leen mhm. nañ xam ne alal jooju ñu yor alalu njëriñ la alalu ndono la dañ koo sàcc. sàcc dañ koo sàcc nañ xam loolu suñ ko mënee parce que parce que booy yow garaaw nga booy fooy lukkarte yi xam nga am na dëkk yoo xamante ne takk der bu fa dugg baa xam nga loolu hmm? fii Sénégal <laughs> fii paa bi dëkk nag ci ci yooyu la bokk même ba ñu planté dañ leen wax ne ñoom foofu duñ fa dem xanaa ñu xaar ba mu génn dëkk bi ce que doxalal ñu dem gaaw xam-xam bu contre carré lañu bëgg <laughs> nga xam nga lu ci doy waar waaw mooy ñoom dañoo demoon wuti ku leen ñaanal ngir miraas mi bañ a am coow. waaw. léegi nag miraas mi am na coow loo xam ne léegi ñoom dañuy wëlbati du ko fay. waaw. te problème bi mooy ñi ñu bokkal xaalis bi pour ñu gëm ni histoire bi nii la demee day compliqué lool. waaw nag ah mën naa ñu gëm ko xëy ne ñoom ñëpp. ñu amoon na consensus. laa ilaaha illallah yow nee nga ma ci am na ci frère boo xam ne nekku fi. waaw kooku moom kooku moo moo xam booy bi. Ah. ki jógee France. waaw moom moo xam booy bi fu mu toll nii ma ngi ca topp di dem te moom bakkanam sax mi ngi ci xottu gerte ndax nee nañ ko soo bàyyi paa paa mën naa koo rey fu mu dégg paa bi dem fa. ok amul sama dem te ñëw. lii nag moom faa ñu jukki. Euh, mhm. kii nag nee na jabaram day sàcc. jabaram lañ sàcc. nee na jabaram sàcc la. jabar ji waaw day sàcc. waaw. dafa <laughs> bëgg loxo yi. mais lu ko ci dugal lu muy sàcc lu tax muy sàcc. sàcc kay jaay jaaxal la wax sàcc kay xaalis day sàcc xaalis. da koy sàcc moom day sàcc ñaan ak ñaan na ñaan ndax papam xam na ko. ah mais non du mbonam dañ koo nattu peut-être. ah xëy na xëy na mu sàcc ku mu warul sàcc. jigéen juy sàcc jëmul kër de. gi sàcc daal du jëmul kër sax waaxul mais ci jigéen lañu moom la gën a la gën a compliqué. Ah, daal de sàcc kon Sénégal bëri na jigéen ñu mën a sàcc njaay sàcc mooy nga jël loo xam ne moomuloo ko. waaw sa jëkkër teg loo moom loo alalam nga jël ko. Mm-hmm. jigéen ñi bëri na kon Sénégal jigéen ñi bëri sàcc lañ. ëpp naa wax <laughs> ëpp naa wax. bu seen jëkkër yi te ñu randal ko. ëpp naa wax <laughs> ñu déglu ko déglu. dama am soxna soxna si day jël rek wax dëgg yàlla day jël façon faj bu ne daal faj naa ko ba ku ma si dimbali ku ma dimbali daal laa bëgg moom waaw ndax sama soxna la maa ko tag ci fatu yàlla sunna Muhammad am na ñetti bant te xam nga kooku tey boo yàqee dara doo dara laa yàq waaw ma bëgg daal ku ma si dimbali ku ma ko fajal rek laa bëgg ku ma ko fajal kese kese laa bëgg dafa nekk si kër gu mag di fa sëy ma nekk fa ak samay rak wax dëgg yàlla waaw man moom daa jël sama xaalis ñaar wala ñetti yoon bu si nekk dama ko sëfal mu jël ko des fois nga sëfal ko mu jël ko des fois nga jël sëfal ko doo si jot waaw sama jabaroon nag maa ko tag ci fatu yàlla sunna Muhammad exagéré dafa gën a exagéré ndax bi nga def ak en général ma def ko def ka ay kaf nii mais dafa dem plaha ah, dafa mel lu ko dëggal nii waaw xaalis nag lay jël xaalis mosuma gis leneen mu jël kay tam xaalis ndax man mi di jëkkëram wax dëgg yàlla jël na moom moom ba tàyyi su ma ko sëfalee des fois wala des fois mu ko yóbbu te xam nga am na ak njaboot xaalis nag lépp lu mu daal yàgg na moom yàgg na trop yàgg na loolu wax dëgg yàlla muñ naa ko muñ daal muñ ma koo muñ boo leen am ngeen ak njaboot te yàlla tey boo ko sànnee rek sànn sa ak njaboot day jël de day jël ñeneen tey waaw day ñeneen ñeneen de waaw tere yàq jaram waaye nag dama kaa gis waaw day jël ñeneen de jamono yooyu rek woo naa papam di ko wax sax papam xam na Ndiaye. non nañu ko dimbale am nañu ko mën a ñaanal. waaw am nañu ko mën a ñaanal. te loxo yi. parce que xam nga danger bi mooy lan. Hmm. am nañu ko mën ñaanal. Hmm. man gis naa ñoo xamante ne du ñu sox sax ay mag ay xale lañu. Hmm. nii lañ doon def. donc bëgguma di joxe ay orientation. mais am nañu ko ñaanal mu dañ. gisoon naa koo xamante ne dafa dafa dafa wexoon. day hmm. dóore rek. Hmm. day dóore rek. ñu téye loxo yi ñu téye loxo yi yooyu yëpp mën naa nekk. am na ñu wax am na inconvénient nag parce que yaakaar naa ne xamaa xamul kiy dóore boo téyee loxom wala kii kii kii. kiy jël kiy jël boo téyee loxom hmm. je pense day dafay dafay dafay kii ci dafay répercuté wu ci am amam. ci wërsëgam daal day wàññi wërsëgam. waaw la mu waroon jot du ko jot ko jot. moom kay moom mi ngi noonu daal. am nañu après boo loolu lépp weesoo nag. Mhm. yàlla sunu borom mooy dogal mooy joxe. <laughs> bu loolu lépp weesoo. Mhm. bu yàlla ne di nga am un milliard. gis nga bu àdduna bi yëpp àndoon di la job pour nga bañ a tekki. fi nga toog la lay fekk si. waaye bu yàlla ne di nga dund ba dee ñaari cent franc yu daje doo ko am. Mhm. boo doon njëkk xëy di mujjee wàcc sax du tax nga am ko. donc dañuy jiital dogalu yàlla sunu borom après nag bu dem ñaan lu ji. xam nga xam nga luy danger bi. mooy euh, boo amee jabar buy sàcc. mën naa dem fu mu dëkkul. sàcc fi ñu duma ko moom yëgade benn ngi noonu. wala nga am ak moom njaboot li artiste ba doon wax nit nit moom lu mu lu mu nàmp rek. moom lay moom la génne. ba saa neex doon wax yenn saa nga génne loo nàmpul de. nee na meew dafa am solo ci doomu aadama. waaw parce que nit lu mu nàmp rek. léegi yow bu fekkee da ngay jël. am doom. nàmpal ko. c'est fort possible. muy mën ngaa nekk sàcc nàmpatu doom tam nekk sàcc ngaay ah wuy ah, dina jur xetax nangook nag yenn saa ñu gis ñu ñu gis ñu gis nga am noo mel ah. ñu ne noo kii diw mënu koo jur tellement ki jur am na am na nu mu demee mhm. yenn saa nga juddoo baax ñu xool la nga bon ñu mhm. te lu baax nga nàmp loolu la nga gis nga dégg nga dégg nga Matar Seck bu Mbooda da doon mbokk gu mbokk gu mbokk gu mbokk gu yaatu nee na nee na affaire bi jikko la nee na na golo. xam nga golo golo ci yax bu la bokk. waaw ndax ndayam golo la bàyyam golo. waaw bete bete la. waaw waaw. kenn bëggutu dëkk ak moom. am na ñuy dëkk golo di. ah waaw ñu xam <laughs> ni ñuy dem. ñu may siyaare ne ah. uh-huh. ma. li mu la wax fii sànq ci pont wu ànd bi. seeraas tam noonu la mel. seeraas uh-huh. maanaam fi ngay jéggee raay bi tamit loolu la mel. mooy réew mi li ñu fi war wax daa bëri de képp koo xam ne soxla nga xalaas. Mhm. wala nga am xalaas boo bëgg a ak waa réew mi. waaw da ngay woo passe partout ci 77. 150 150. 17 17 17. waaw 77 150 17 17. waaw ñuy waxtaanee xalaas yi. jànge ci yeewoo ci xame ci. yeete ci. maa ngi lay gërëm bu baax a baax. dinaa indi suba kaawu 2 milliards bi aussi. miraas la loolu it. kooku nag moom tamit dafa kii wu ñu fay ba xaalis ba dem ba dugg banque ñu fay assurance xaalis bi war a génn paa ba génn àdduna. <laughs> jërëjëf bu subaa